ñu ngi sant yàlla di gërëm mu saa ci li mu ñu defal ci kanamu njabootam gii nga xam ne ñoom ñoo fi représenté mu saa di sëñ Modou Ndaw mi nga xam ne ah, ñoog moom ñoo nekkandoo woon ca daara ja muy suñu magum taalibe waaw mu takkoon diggam laxasaay liggéeyal baayam ba baayam gërëm ko mu ànd ak rakkam ji sëñ Omar Cissé kon lii bu ñu tegee première pierre bi daaw dañoo ñaanoon yàll na tabax bi jóg daaw lañ teg première pierre bi ñu ñaan yàll na tabax bi jóg ndax kër gi kër Cheikh Moussa la loolu nag sant naa ci yàlla ba mu juddoo ci suñu biir kër waaw ndax ku ne bëggoon na ko waaw ndax Cheikh Moussa dane woon lu bokk nduroo nag waa nga juree Touba meew mi rattal nañ ma ko tuubaa andil ma ko daaru ku ko bëgg a mos ñëw daaru wala doo ko mos lu bokk nduroom googu nag moo tax lépp lu sëñ tubaa am ci kaw suuf rek Cheikh Moussa dana ko am kon sëñ tubaa am na kër sëñ tubaa yi fépp ci àddina kon tey bu Cheikh Dum amee initiative bi ñu jox ko addiye terrain bu toll nii nga xam ne mënoon na koo jaay def ko ci poosam mu tuddee ko kër Cheikh Moussa ñu teg première pierre bi yàlla dimbali ñu tey njabootu Cheikh Moussa gi saayir rek baatin nag teew nii kon dañuy sant rek bu baax ci seen teewaay ci lii nga xam ne tey man mii bëggoon naa ko waaw waaye def awma ko Cheikh Doum la ko yàlla jagleel kon Cheikh Doum a ah, sa jëf ji rëy na waaye nag jëf jëf jëf du rëy ci kanamu Cheikh Moussa waaw ndax sëriñ bi kat a ah, lum jëfut ci lu baax ci yoonu yàlla rek yaakaar naa ne boo ko gëstu woon doo ko gis waaw amul lum dajut ci digganteem ak boroomam jaare ko ci wasilaam Cheikh Ahmadou Bamba Xaadimu Rasul waaw waaw ba tey mu taxaw ne maay xajab Serigne Touba ci toolub Serigne Touba bi ku bëgg a yàq benn gàncax ci biir tool bi man Cheikh Moussa Sy naa la baw ba àddina yëpp gis la kon kooku soo ko wutalee kër ah def nga lu rëy waaw ku def lu rëy nag dañ lay wax jëf waaw jaa jëf gu ànd gu tak wàcc waaw kon nag rëdd ngeen gas ngeen fondement ngeen sëkk leen yëkkati mu jóg waaw ba bu déwénee incha allah ñoom ñii ñu tedd ñii bu ñu ñaanee ci darajay seen wayjur wa darajay seen wasila ba yàlla mën na koo def mu nekk njëndi waaw te ñoom kat ñoom ñoo ko moom buñ ne ñoo ko moom nag njabootuk Cheikh Moussa gépp a tax ñu ne ñoo ko ndax kër Cheikh Moussa la waaw kon fi la tambalé mais du fi yam waaw waaw fepp la koy am ci àddina bi keur Cheikh Moussa fepp la ko ndax talibé yi bëss buñ ko yégué li ña nek France danañ ko danañ ci taxaw ña nekk Italie danañ ci taxaw ñi nek ci diaspora bi tout danañ ci taxaw ndax kenn gënul bëgg kenn lu baax waaw kon nak seigne Modou ah mbir ma ngok dañ la doon ubbil rek ndax li sa mbir la ñun du suñu mbir waaw sa mbir la waaw kon nak dañ la doon ubbil rek waaw kon kaddu gi yaa ko moom kaddu gaa ngoog bismillah sëñ Omar bismillah sëñ bi nee na ñu delloo la kaddu gi waaw. waaw dañuy sant bu baax rek. Eh, di gërëm. waaw ànd ak sunu mag. Mm. sunu sëriñ Cheikh Modou Cissé. di ñaanal sunu xalifa ah. di di ñaanal sunu xalifa eh, Cheikh Aliou Cissé yàlla guddal fanam lool te yokk wéram. ci barke Cheikh Moussa amaana fi ñu taxaw ni mm-hmm. man may wax ci ndigalu sëñ Modou. Mm-hmm. moom moo fi waroon a taxaw moo waroon a wax. Mm-hmm. waaye sëñ Aliou Cissé moom moo ko fi teewal. Eh, sëñ Modou Cissé moo ko fi teewal waaye nag ñun ñu ngi wax ci ndigalu Cheikh Modou Cissé ibnu Cheikh Moussa di la ñaanal gudd fan loolu ak weer eh, barke Cheikh Moussa. lii mbégte mu rëy la ci njabootu mu Moussa gi. lii am na lu muy joxañ li Cheikh mu doon wax ne sama fasu naaru góor ku ma ko lebal. ngeen la soo demee ci course boo dem di nga raw waaye ngela soo rawee na nga fay. lii dafa du fay lépp parce que Cheikh Moussa lim ñuy defal mënuñu ko fay. voilà dañuy sant rek dañuy sant rek jamono ju sant nag jamono ju ne damay wax ne jëf la. te sant benn sant yàlla benn yàlla dolli fukk. Euh, Cheikh Dumtin mën nañ ko tudd waaye mën nañ jiital Cheikh Omar Ndiour. xam nañ la ci liggéeyal Cheikh Moussa parce que biñ teewee fii rek automatiquement sama xel daarul la dem. ci xabru Cheikh Moussa Cissé Njambe Daaru ci jamono ji nga xamante ni yaa ngi yëkkate alal ju bëri di ko fa def loolu loolu booba jafe woon na lool sax boobu tumuraanke moo nekkoon kër Cheikh Moussa booba bokk na ci Cheikh Moussa kàddu yi mu doon wax su fi jógee bees coono boobu ak finn ba moo doon daw ci jamono jooju booba la nga defoon yombul biñ teewee fii rek loolu la sunu xel demaat waaye ñu gisaat ne yaa ko def waaye ci jëmu Baye Dum waaye yow yaa ko def parce que Baye Dum boo duggutoon ci moom moom manut benn benn birig bi sax mënu ko génnee fii. voilà hmm. xam nañ moom wax nañu ci lu mu nekkoon démb ci xërëm ak takk ak naan ak te dara sottiwut ci loolu la nekkoon. Hmm. fu dara nekkut kenn du fa def dara. Hmm. kon ñu ngi ciy santaat bu baax di gërëm. di ñaan kër gi yàlla na ko suñu borom mottali. ci barke mu Moussa te suñu borom dina ko mottali parce que mbirum seex mu Moussa la. Cheikh Moussa moom moo ne mbiram lépp kanam la jëm. kum neex kanam la jëm kum naqadi kanam la jëm. voilà am nañ ci mbégte mu rëy. kanaa di tënk kàddu yi rek di ñaan suñu borom barkeel lépp. barke Cheikh Moussa sant nañu bu baax gërëm nañu wasalaamaaleykum wa rahmatulah si Cheikh alhamdulilah. kon sëñ baa ngi def ñaan. waaw waaw ku nekk na def fatiha. def inna anzalna fi laylatul xadri. def fallaxi ak salaatu ala nabi bu waay man rek. ñu tëjee ko ko. ñaan yàlla ñu tàmbalee ko bisimilah rahmaani rahim. ko ci alhamdulilah rabil aalamiin. tëj ko ci jàmm ak. dëkkee ko kër gi. ci jàmm ak barke. bi jaay sallallahu alayhi wa sallam. barki Cheikh Moussa Cissé.